ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri nañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko koy xajul fii de waaye nañ ci yegg si ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha bis ni ki tey bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg ñu nga bëgg a yeewu ji Ziguinchor bu soobee yàlla daal di commencé campagne may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye da ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu ne léeg ñi ñuy def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné lañu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat boobu la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee. dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu ni mer naa gedd naa di tax ñëw ñu sama dëkk di tax wàcc ñu nuyu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu bu mu tee ñu gën a takk digg yi

bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox amul wallaahi yéen xam ngeen dama Sénégal yi question bi ñu loolu rek jar na bañ a liggéey dëgg yàlla ñun amuñu am nañ tuuti waaw fan la milliard Amadou Baye jógee. est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ne kii man war lu mën a nekk président réew vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégal déedéet Sénégalais la fii la jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du Sénégalais rek gënuma koo nekk Sénégalais. këy ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ay panafricain ay sénégalais ñu dund feneen ñenn ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatisé kenn bu ñu stigmatisé kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est bëgg na réew mi est ce am na compétence yi. leen nag premier question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ko joxee réew mi dégg nañu réew mi waa bitim réew. xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaari yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis-gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement. mu ngi wër nag di wax yor la meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaana Amadou Ba mënuñoo yàpp de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu na direction générale des impôts mooy yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bi ko ay milliards mu laal ko bu ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow. te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ko jox réew mi. balaa may dee ñu ne compétence compétence la expérience expérience la ndax ndaw alal réew mi. kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga dem ci même rangeen bi rek dañuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew mi mu ngi en danger dañ ñoo rax wax ñoo leen rax ñun ñu neewoon ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mel ni xal bu nekk seen loxo ñu gi sànni ñu ci biti ak terroriste yi nga ko génne nii ana ñan ñooñu la kii gëmul tarixa kii gëmul wax waxatu ci réew mi man tey moom la ñu jël pour koo def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme defal nga toog yi yooyu ñuy wax ay waxu tàmpale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fekk ñu wax nañu def li nañu def li mais la fait que ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord ñu Sénégalais yi jóg Sénégalais yi jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ñu ne seen gannaaw di leen financer ay terrorisme ak yooyu dañu respecter Sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens mais waruñu leen dugal sax ci yéen il faut ñu respecter peuple sénégalais bi ma mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses kon nañu concentré wu ci l' essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp ni lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu ne. parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñu ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité la moom mooy président de la république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am waaye fi mu jaar ba egsi fii tout sa trajectoire loolu lu voyé naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ni mun na koo jaar ba dégg monsieur le président de la moo tax il va falloir qu'on fasse un large bi incha allah dañ koy gagné di dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est au premier tour daanee nag damay bañ a def sama candidat bi damaa bëri wax waaye dama leen nangu ma daane rek ma daane version français bi sax moo ko def damay bàyyi président wax fi may daane leen mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ kese léeg-léeg kenn ku nekk ñun dina am ay seytaane muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax ay êtres humains lañu dong nga nekk situation yoo xam ne waaye est woor que wóor na ma joxe lii bu kenn ko dénkaane nanga bi ñi di ñëw di wax ko defee soo wetee ne a'uuzu billaahi mina shaytaani parce que bu ko moy rek nga gis sa bopp li ma def man mënoon na tombe ci Birame Souleye Diop mi wala ci Abbas Fall mi wala ci a Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib Sy mii dafa ñëw seet ma la seule fois bu mu jot a ñëw ma seedeel ko ni c'est un homme de mission assonage c'est un homme de mission parce que dafa sa ma seeti ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu nattu nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce sera pour ceci et ceci et cela mu ne bu soobee yàlla noonu laa koy defee te boobu ba léegi saa su ma bëggee dara ci moom su ma ko nee léegi léegi moom mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko moom c'est un homme de mission ma seetlu ko ko si noonee laa koy seedee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa ngi koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bu ma seetaanee baay bi ak tagal bi alors dafa mu dem dañ ngeen dam fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne nu Diomaye Faye nii kon di leen